waaw salaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi nuyu ku si nekk sa tur sa sant maa ngi tudd Ousmane waaw dëgg ñaa cokee di sportif na di ko dund quoi di dund football lu bari waaw dama doon xool euh, mooy match yi jàll championnat yi ak en même temps di xoolaale kan bi yenn match yi résultat yi quoi parce que man sportif la chaque jour damay dugg si wàllum page sport di site yi di xool euh, transfert yi wala yenn résultat match yi quoi Sénégal seen joueurs yu bëri gars yi dañ leen ñu ne dañoo positif ak Covid bi moo tax euh, tournage bi xaw a bëri quoi gars yi di tourné bi jël ay latéral di leen ay excentré di jël ay défenseur di leen ay milieu terrain di di def benn genre mélange boo xam ne comme équipe bi su matee yaakaar naa mélange boobu du am quoi mais comme euh, ak lu ñu jot a a am fii ak démb loolu dal na xel quoi parce que am na joueurs yi ñëwaat nañu mel ni Ismaïla Sarr moo xaw a maa ngi si équipe yi te instant bu ñu defee loolu noonu xëy na classement bi nga xam ne moom lañu ñu def yi passé dinañ am dara si match bi ñuy jëm nii quoi mais naa ne Malawi ak Sierra taxawaay bu ñu fi taxawee mooy taxawaay Zambie ba mu fiy jël kan bi parce que bu ñuy joué doon leen bàyyi xel mais équipe yoo xam ne dañuy dem ba jeex en fond en tant que arbitre sifflé wul fin quatre-vingt-dix minutes bu jàpp nga moom boo xoolee physiquement premier match bi contre Zimbabwe dañoo souffrir physiquement dañoo bàyyi dañoo lâché mel gis si moom rek mooy joxe lu mu am yëpp di marqué gauche di marqué droite kon nag bu fekkee foofu noonu yow nga xam ne booy Malawi yi nga xam ne physiquement te ñoo ay joueurs local lañ ñu nekk si euh, championnat la ñuy nekk di football te ñoom demuñu extérieur te ñooñu nga xam ne fii lañuy ñuy jaayantee lépp soo dajee ñoom ñoom amul de affaire de star amul dara dañuy joxe lépp ba mu jeex te boo Sénégal moom yaakaar naa masam bii nii tuuti bu ñu ko xawul def si effort rek mala wi la ñuy waaw Amadou Ba lañ koy wax waaw au début moom ñu ngi si doon gis suñuy bopp ndax euh, avec avec euh, kii bi Aliou Cissé ni mu defee woon kii woom yi par performance am si qualification yi. gis nañ moom lépp exact mais ñun lenn moo nekk suñu problème mooy Sénégal comme par rapport ak yeneen équipe yi même ba si CAN bi équipe yi jot a qualifié yëpp ba si buur ndaw bi sax au mois di nga gis ñu am jeu ñun jeu mooy suñu problème mais du question rek gagné wala dara Sénégal niveau bu ñu koy teg ndax mu nga xamee classement d'Afrique moom moo nekk number one waaw moo tax nag équipe nag lu ñuy gën di wax 6 ans ngi nii Aliou Cissé nekk ci nekk euh, si coach coach équipe nationale depuis ba léegi mënul am jeu mënul am 11 de départ. te Sénégal lenn mooy suñ problème mooy ñun dañoo mën a màggetloo ay joueurs am na yenn façon joueurs yoo xam te ne boo leen yoree même au fur et à mesure nu ñuy mënti demee dañ leen war a bàyyi parce que kan du question de da nga gisee ay club yu mag wala dara yaa koy jël déedéet kan boo xoolee trois dernières kan yi boo xoolee maire joueurs yi ko mu jël yëpp ñu jël maire joueurs yëpp ay ay locaux lañ. Fallou laa tudd kan Fallou kan bon man nag du ma spécialiste football voilà kon damay wax sama xalaat rek bon mais daal gisuma lu ma lu ma doy quoi franchement gisuma lu ma convaincre quoi franchement si plan wu fond wu bi forme bi franchement pour man daal am na liggéey bu ñu war a continuer def quoi ah. bon travail déjà yenn automatisme yi parce que man j'ai l'impression que sur le papier ñëpp dañuy wax ne ñun on est la meilleure équipe quoi tu mais loolu dafay am ci kayit yi il faut que ñu jéem ko traduire en acte quoi pour man foofu la liggéey bi nekk quoi Parce que si nous regardons l'individualité, on peut dire ok, on a une grande équipe. Quoi. Mais au niveau du collectif, pour man une équipe, ça tourne autour du collectif. Quoi. Dès lors que le collectif, bi, nous andons, demandons, pour moi, il y a un problème. Quoi. Il faut que nous, nous, nous liguions. Salam alaikum, salam alaikum. Je m'appelle Mohamed Ba. Niatcheker fait la Dakar Plateau. Voilà. Oui, oui, bien sûr, on est sur la canne. Nous sommes sur la canne. Nous sommes concentrés mais carrément équipe nationale waneeguñ lu ñu lu ñu soxla quoi carrément mais tout ça base bi mooy que coaching bi la quoi franchement. aussi genre fulla bi des na carrément fulla bi fulla bi quoi rage de vaincre bi des na trop franchement si milieu terrain bi am na koo xam te ne dafa waroon ñëw carrément pan Paulin Ndiaye dafa waroon ñëw carrément défense bi Karambooj Serigne Karambooj deux carrément de même avis deux matchs consécutifs en tant que le Sénégal muy football loolu noonu finaliste de l'année dernière voilà finaliste de l'année dernière muy football deux fois une heure si naaj bi tàng bi aussi état terrain baaxul état pelouse bi. Euh, waaw ci loolu moom dëgg la Sénégal bi yëpp xam nañ ko parce que Aliou Cissé benn da ngay dégg sax gars yi naan ba muy joué sax mosul nekk joueur bu aay loolu rek firndeel la gars li ñuy wax dëgg la mais dafa nekk nit boo xam ne tamit. si li ni euh, ko jege lu ñuy wax ko si jege ñaale bi neexul waxal ko parce que dafa xawoo a dëgër quoi te loolu du yoon yow boo aayul nga nekk ñoo xam ne lu ñu mënoon yow ba ngay football mënoo ko da ngay xaw a dé da ngay xaw a neex deret di leen déglu tamit ko waaw loolu si la bokk onze départ bu ñu war a teg mooy euh, sama sama sama sama sama sama sama kii sama sama sama sama camp dañ fa fa tegal Mendy défense ak central bi Kalidou Koulibaly ñëw na dañ koy jox capitaine bi ñu tegal ko moom ak Abdou Diallo ah latéral gauche yëpp fa Saliou droite Bouna Sarr wàcc ñëw euh, excentré gauche bi da nga fay yóbbu euh, kii nii Diawbala Keita du dugg foofu da nga yóbbu euh, Bouna Boulaye Dia da nga koy yóbbu foofu Famara Diédhiou day ñëw attaque pointe bi beneen excentré bi nga yóbbu fa Sadio Mané sa milieu terrain bi nag nga organiser ko moom mooy Pape Matar Sarr day ñëw numéro 10 Gana Gueye Cheikh Kouyaté Pape Matar ñëw numéro 10 Sénégal amul kuy génnee passe pour attaquant yi boo xoolee match bee passé Boulaye Dia génn presque xaaju mi-temps bi gisu ko parce que am na ñenn seen doon seetaan jékki-jékki ne Boulaye Dia nam mu ngi si terrain bi maye bi tilimul amul benn contact amul benn duel bu mu def mais xëy na match bii nii bu Famara Diédhiou ñëwee attaque dina xaw a changé parce que ñu ngi naan attaquant Sénégal yi toog nañ 10 match yoo xam ne amul trois attaquants yuy dugal Moussa Sow moo moo nekk attaquant bu mujjee dugal si kaan yi te loolu du yoon quoi kon yaakaar naa war nañ am koo xam ne moo li mën a génneel ay profondeur ñuy mën la sélection tu tu parce que man je me di que ceux qui sont moins bons je dirais man pour man kenn sélectionné wu leen quoi donc boo bokkee ci sélection bi rek man damay jàpp ni que d'office que tu dois être bon quoi man pour man loolu du excuse quoi bon peut-être nag Sénégal problème bi mooy ñëpp ay coach lañu ku nekk da ngay def sa classement ku nag da nga am sa ay joueurs ce qui fait que voilà Alioune il a pas la tâche du tout facile quoi ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñun ñëpp ay entraîneurs lañu mais man pour man fi ñu toll nii tollatuñu si di ko critiquer quoi. xamoon nañ d'avance que ni Aliou Cissé nii la mel xamoon nañ d'avance que ni nii lay jouer pourtant dañ ko fi bàyyi. bon tu sais xam nga bu ndam ñemee ñëpp koy bokk man pour man bu leneen lu dul ndam ñëwee aussi ñun ñëpp ñoo ko war a bokk quoi mooy li ma la wax fi ñu toll nii tollatuñu fu ñuy fu ñuy euh, où on se où on la patate chaude quoi tu vois man pour man loolu daf ñuy gën a tardeel quoi. fi mu ne dañu war a taxaw ñu def ay des critique yu objectifs def ay analyses yu vraiment yu concrètes qui nous permettent vraiment ñu avancer bu ñu demee nag ba dellusi si après mun nañ toog nag ñu évaluer quoi ah yoolu heure évaluation la quoi mais fu ñu technique bu ñu bëggee focaliser focaliser wu ci loolu rek daf ñuy gën a tardeel quoi nañu fexee nu ñu gagner suñu prochain match ñu qualifier s'il y a des rectificatifs ñu essayer ñun ñëpp unis comme un peuple ñun ñëpp ñu jàpp ci tu vois ñii ñaan ñaan ñi ñiy waxtaan ak Aliou Cissé waxtaan nag moom tu vois ku nekk fa nga fañ la yaakaar nga def la nga fa mën bu ñu ñibbisee nag après heure évaluation dina jot bu boobaa dinañ mën a tirer sur sur sur si yenn affaires yi quoi. mooy li yi di wax quoi man je pense que tamit que ni vraiment dootuñu nation bu ndaw quoi. kon bu ñu ñëwee tournoi bu toll ni Coupe d'Afrique man je pense que tanière bi war nañ ko bunkeriser. de sorte que yenn affaires yi bon yàlla nag moo nekk fépp quoi loolu on n'en disconvient pas mais au moins ñu jël suñu yenn disposition yi ba yenn affaire yi du yomb quoi tu vois parce que maa ngi dégg ay rumeur ah nekkuma Cameroun xaw ma ce qui euh, ce qui se passe là sur place kon du ma du ma dugg ci di wax lu ma wóorul mais am na ay rumeur yu wax que ni way am na ay dirigeants yu génnoon dem Bali machin chose ils étaient invité je pas où man c'est pas professionnel quoi tu vois si déjà et ay anciens joueurs la ñuy la ay anciennes gloires la ñuy cité franchement man pour man ñooñu dañu waroon ñëw joxe la bon exemple quoi mais ñoom ñooy ñëw di génn loolu mun na motiver yenn bol blo boy yi blo maan de conseiller de de de de de catalyseur de de de plate tournante parce que il fut un grand joueur aussi lu ñu ko mën a waxal xam nañ ne mës na boot Sénégal tu man pour man moom source de motivation la war a nekk au niveau de la tanière euh, de la tanière man pour man El booy yi dañ ko war a gis mu mu dooleel leen mu fital leen ñu xam ne hop le vieux lion il est derrière nous kon ñun les petits lionceaux là on n'a pas droit à l'erreur tu ñu ñëw di dal c'est comme le cas d'Aliou Cissé tu vois Aliou Cissé parfois je me demande si c'est une question que je me pose si vraiment il a le bon discours parce que man au niveau de l'aspect technique au niveau de l'aspect tactique man je pense que rien qu'un bon discours mun na galvaniser équipe tu vois te man pour man pour man encore je l'ai dit au début du ma du ma spécialiste quoi mais man pour man Aliou Cissé loolu moo gën a favoriser ñu jox ko équipe bi loolu moo gën a motiver ñu jox ko équipe bi sur le plan technique xam nañ ne que Aliou génération am mais moo ci gënoon limité techniquement mais pourtant moo daan takk ndomb bi parce que dafa amoon benn affaire bu nekkoon ci moom tu benn sénégalais bu ñu doon gis ci moom benn jom benn fit tu vois benn meneur de troup tu man pour man bu franchement bu amee discours bi mu war a am au niveau de la tanière franchement avant coup d'envoi mu am deux minutes yu mu wax ak booy bu ñu duggee daf leen war a dopage la war a nekk quoi Sadio qu'il continue parce que voilà quoi qu'on puisse dire aussi il essaye il essaye c'est comme j'ai dit tout à l'heure quoi on une équipe quoi bu ñu bëggee jël lépp yan ko Sadio dañuy sonn rek quoi à lui tout seul il peut rien faire. pronostic waaw ay 2-0 nag baax na de yaakaar naa waaw 2-0 euh, benn bi attaquant bi dina ko dugal Famara waaw beneen bi Sadio Mané day dugalaat. MTV waaw foo live ca kaw ca kanam yokku ba yëkkoo waaw allah. bon xam nga tamit bu ñuy pronostiquer de manière objectif franchement Sénégal wane wu fii franchement lu tax ñu mun a am espoir trop quoi mais en tant que sénégalais nag dañ naan aller les dañuy daan. tu parce que voilà sénégalais la ñu du ñu dem lamba ja daan dañuy daanu. bon li ñuy ñaan xanaa ñu ñaan quoi ñu ñaan yàlla yàlla dooleel ñu rek ñu paan ci kawam trois bu ko defee gars yi ci kanam yëpp sóor ñu quoi. <laughs>